ngeen jëf mbokku Leewtoo TV yi amaat mbégte jàkkaarloog yéen pour présenter leen seen cinquième numéro émission bi ñu tuddee jotaayu làmb jotaayu làmb nag tey am mbégte dalal ñaari invité yu euh, de marque yoo xam ne ni xam nañ leen ci làmb làmb ji ñu mën ci lim euh, Ahmed Konaté Ahmed Konaté moom mooy coach sukaay baax Ahmed Konaté maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog euh, internetu Leewtoo TV. asalaamaaleykum Alaaji Assane bon maa ngi nuyu wax dëgg yàlla monde làmb. ñu mm-hmm. nuyu nga xam ne ñooy Euh, Leewtoo TV. Mm-hmm. te di ñaanal ñëpp aussi jàmm ak salaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, merci beaucoup Ahmed am nañ fi également comme invité Yacinthe Sarr Yacinthe Sarr promoteur la ñu gën ko ràmbee ràññee ci li simple Yacinthe maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog internet wu Leewtoo TV. waaw Assane maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur wu Leewtoo TV. Mm-hmm. di nuyu sama tonton Konaté. Mm-hmm. waaw di la jaajëfal. d' accord euh, yaa tey nag ñu war a waxtaanee ci sujet yu bëri actualité dinañ revenir ci huis clos bi dina revenir également ci démarage démarrage saison bi mais may démarrer ak konaate Konaté gis nañ ne coach nga ci kaay baax euh, généralement yan euh, problème ngay rencontre foofu si sa biir écurie bi di kay baax. waaw Assane tey dama am mbégte déjà. Mhm. ci opportunité bi ma jox pour mu mën a wax ci làmb. ndax làmb dafa am fu mu toll. te ñu war a jox acteurs yi aussi ñu mën a wax seen seen xalaat. c'est voilà donc euh, man maa ngi nekk école de lutte kay baax mu nekk mhm. ci diwaanu Tëngéej. Mhm. donc euh, pratiquement problème yi nga xam ne moom la structure làmb yi di rencontrer rek la ñuy la ñuy rencontrer. Mhm. mooy problème mu déjà fi ñuy entraîner. problème mu aussi euh, du trouver ay combats du tout comme sax mais ñun yàlla dimbali ñu. ces dernières saisons quand même on donne au moins une trentaine de combats. oui waaw ba daaw je crois que ne bi saison bi kiiwee ndar keppe. Mhm. ñu ñëw jëloon ngeen daaw bi <laughs> voilà mais bon franchement bon ñu ngi sant yàlla daal. d'accord voilà. pour nga doon euh, coach ci benn écrit day am diplôme yoo war a am wala. waaw parce que man je suis je suis un, un professionnel du sport. Mm -hmm. professeur d'éducation physique là. Mm -hmm. donc euh, am na une certaine expérience ci sport am na ay diplôme mais d'une manière générale yow je sais que professeur de PS nga. Mhm. mais yeneen coach yi est-ce que dañoo am. diplôme yeneen coach yi si euh, ñun Malick Thiombane coach la. il a subi une formation avec le CNG. d'accord defal nañ leen formation. am na sax benn ñoom association bi nga xam ne Mbaye Diallo moo ko dirigé. Mhm. donc euh, c'est une structure bi nga xam ne mi ngi fi bien reconnue. voilà donc ñun ñi ci lañ bokk wax dëgg yàlla. d'accord. da ngeen bëgg làmb moo tax ngeen coaché wala dañ leen di fay ci écurie bi. <laughs> non non non no passion la rek. amuñu ci dërëm wax dëgg yàlla nekk ci réew. Euh, war a mën a participer aussi ci développement réew mi ci ci li nga mën. ñun mhm. sport lañ jàng sport lañ xam. bu ñu gisee xale yi nga xam ne dañ ko bëgg ku leen ci jàppale. Mhm. ñu leen ci jàppale rek mais du cent franc bi nga xam ne dañu ko ciy fay wax dëgg yàlla làmb moom boo ci nekkee di dimbali. Mhm. ak configuration bi mu am. dañ wax jàppale moom ma jàppale samay waajur. d'accord donc xale yi loolu lañ ci loolu lañ nekk ak ñoom franchement di jàppale pour ñu defar seen carrière mën a àgg fenn ci làmb ko d'accord di leen ñëwaat teg ci yow euh, yaa sant ñu démarré yow xam naa ne promoteur nga mais également doomu ancien lutteur nga muy Ambroise Sarr euh, pourquoi jaaroo si sa tànk papa. bon peut jaar naa si. Mhm. mais peut-être gisoon naa ne mënoon naa waroon naa mën a def leneen. kon nekkoon nga mbër. nekkoon naa mbër mais benn laps temps rek. pourquoi continuer woo ko. bon du question continuer moo sax xam nga xam nga doomu aadama da nga toll maa boo xamante ne choix day taxaw. Mhm. te man sama choix dama naa benn instant gisumoon sama bopp si bëre quoi mënoon naa gisoon naa wax naa mën a def leneen. Mhm. Mhm. est-ce que am nga frère yu bëree wala. waaw am naa am naa benn frère buy bëri bu tudd Samba. mais kooku moom gars yi xamaguñ ko parce que booy la. d'accord après nga ñëw pro da nekk promoteur loolu dugal ci promoteur yi. waaw xam nga ñun dañuy nekk ay doomu mbër. même bu ñu bëreewul jàpp nañ ne war nañ mën a apporter dara làmb. donc dañuy dañuy tëgg làmb pour pour dundal làmb en fait. pour dundal làmb waaw. parce que làmb boo nekkee doomu mbër boo bëreewul war nga mën a mën a def dara ci làmb quoi lu ñu lay ràññee. c'est vrai amateur nga. amateur nga euh, promoteur nga mais yan problème ngay rencontrer en tant que promoteur. bëri na. parce que. Euh, ñun bu ñuy organiser làmb kenn duñu mm-hmm. jàppale mm-hmm. suñuy dërëm lañuy dajale suñuy ñaar dërëm mm-hmm. organiser duñu am subvention duñu am sponsor en quelque sorte kenn duñu jàppale quoi dañuy dem suñuy moyen de bord moo tax parfois day day métti day métti trop gis na ne li simple également comme ni nga ko waxee amul jàppale amul également sponsor mais yan mooy lan mooy seen responsabilité ci ñàkk sponsor boobu bon pour moo wax suñu responsabilité dina xaw a métti nag parce que xam nga nit ki pour mënuñ jox suñu bopp sponsor peut-être gars yi ñoo ñoo ñi jiite làmb ñoo ñoo ñoo joxul nit simple valeur am xëy na bu ñu ko joxoon valeur am lañ mun a def de telle sorte que sponsor dañu mun a ñëw gis seen bopp. d'accord mais yow en tant que Cardi yow yaa jiite Cardi production mën nga def say démarche pour nga décrocher ay ay sponsor mooy li ma lay expliquer rek ñun dañ dañ koy def mais. Mhm. xam nga li simple duñ ko wone à la télé. c'est vrai nekkul ay événements xam ne dañ koy médiatiser. Mhm. moo tax pour nga am ci sponsor day jafe. mais pourtant euh, lutte simple elle est suivie euh, ay nit ñu bëri dañ ñëw di ko di ko seetaan ah, te sponsor yi soxla woon lu dul public te am ngeen public donc je que seen wàll seen côté am na démarche yu ngeen di def yoo xam ne nii war ngeen mën a attirer sponsor yi. en tout cas ba fi may wax yow nii nii nii. Mhm. am nañ structure am nañ am nañu comment dirais benn association bu tudd association des promoteurs de lutte simple. oui peut-être bu ñu jógee ci lii nii. Mhm. nañ jéem a xool ay jéego yu def. bu jéem ma dox ci loolu noonu parce que bu ñu amoon sponsor aussi dinañu gënal bu baax. d' accord dinañu a jàppale bu baax gën a booster yëf yi. d' accord est ce que yaa ngi envisager un jour nga def euh, lutte avec frappe. non nekkagul sama xel na pour le moment mais lu ne mun na am mais pour le moment damay focus ci bëre simple bi. da nga amul intérêt ci lutte avec frappe bi wala. non non sax occasion amoo ci intérêt sax parce que bon. bu nekkul bëgg bi ñu bëgg làmb tamit dañuy tëgg làmb pour gagner ci dara dañuy mhm. kii moom boo bu fekkee ne bëgg simple mun nañ ci gagner tamit dañ dañ mun nañ mën nañ ci dem mais pour le moment dañuy focus ci bëgg simple ñu ngi ñëwaat Amath Konaté sànq euh, breché nga ko tuuti muy sa suñu làmb d'or bi nga décroché ko mhm. euh, yan critère ngeen def ba titre boobu ah bon je crois que ne euh, foofu dañu compétir lu bari benn mhm, aussi fexe gagner le maximum de nos combats. Mhm. te yow témoin nga ci yàgg naa ko jooytu ci formule bi ñu ko doon calculer. <laughs> ndax formule bi ñu ko doon calculer bu njëkk. Mhm. ñi da doon favoriser ñi nga xam ne du ñu woon compétition yu bëri. c'est vrai dix combats nga perdre ci benn combat daal di ñëw gagner devant. des écoles écoles euh, ay écoles de ñoom ñu ngi def plus de trente combats. Mhm. loolu c' était pas c' judicieux quoi. moo tax bi ñuy bi ñu affaire bi. Mhm. mu ñëw à notre parce que ñun tegale nañ pratiquement quatre ans yi nga xam ne. Mhm. kenn rawuñu. parce que ñu dañuy dem ba trente combats et puis on perdait peu nos nos nos nos nos combats là. donc mënoon nañu wax nañu man sunu làmb d'or bi. bu ñu ko teeloon def formule bi quatre ans yi ci ginnaaw yëpp ñun ñoo koy jël. d'accord voilà donc. Euh, mhm. loolu la quoi. gañe nga suñu làmb door mais ba léegi cérémonie de remise de prix bi jotagul lan moo ko téye. <laughs> waaw yàlla def na def nañ ci ay jéego wax dëgg yàlla waxoon wax wax nañ ko waa Tëngéej ñi nga xam ne ñoo ñu yabaloon. Mhm. suñu autorité yi au passage ñu leen di nuyu. Mhm. nuyu population bi aussi parce que rafetlu woon nañ ko c'était une première. suñu la euh, suñu làmb door bi génn Dakar ñëw Tëngéej. bon malheureusement def nañ démarche yi ba à une semaine de l' événement. Euh, ndogal génn ñu àcc regroupement yi demee noonu. comme aussi nous sommes des ñu plié wu euh, euh, à la réglementation. daal di àjjandugum. waaw pour l' daal ñu ngi xaar. ñu wàcce waat affaire yi. ok kaay baax est ce que am na capacité garder trophée boobu. non pour ay années yu bëri ndax <laughs> dama ko yàgg wax sama mbokk entraîneur yi suñuy xale yi ñoo mën seen i xale. wax dëgg yàlla ñun waaw amaguñ mbër mu mag nag mhm. bu mën ci mbëri mag yi mais am nañ ay xale yi nga xam ne enchaîné nañ euh, plus de huit ou neuf combats sans sans sans sans sans défaite mën nga ñu rappeler quelque euh, pensionnaires yoo am bon je crois que ne euh, ci xale yi nga xam ne ñoo ñoo gën a fësagum mhm. bon au-delà de des ténors du doomu Jalaaw Limousine Ibou Ndafa mhm. Thiaka Faye bon am nañ ay Albouri Euh, nu mu tuddati Petit Coran sama tondo am nañu Petit Baye Fall. Euh, aussi am nañu Tafatine. Euh, am nañu Abdou Guèye am nañu Boyrio. donc am nañu nu mu tuddati doomu Tëngéej. donc booy yu bëri nañ. d'accord Valdo. voilà te ñooñu ñëpp ñu lay tuddal dépassé nañ daanaka huit combats jëm dix combats te bëriwuñu ay défaites. si tey nga Thiaga Faye. Mhm. Thiaga Faye xamee woon ko ci lutte avec frappe. pourquoi concentré wu ci tellement. bon concentré wu na ci parce que def na benn combat. benn combat ci def erreur. Mhm. jour boobu bañ ko yóbbu ci combat bi dañu ko bul dóor <laughs> bien que entraîné nañ ko dóor mën na dóor mais dañu ko bul dóor. Uh-huh. na jàpp waaj rek daan. d'accord bon bi mu demee ci biir combat bi waa cokkaas ko xam naa dóor ko xol bi laaj. Mhm. mu ngàdd ko fa ngàdd yu metti mhm. depuis lors bon comme que champion la en lutte simple. bu avéré. te dafa mën a dóor bon duñ ko jël moo tax bon boobu léegi. wax dëgg ñuy dox ay combat mais bu demee ba ci càppaandaw ga del dootul kii. d'accord waaw. ok ñëwaat ci Yacine Yacine gis na ne yéen promoteur lu simple yi parfois da ngeen di am problème pour euh, déggoo woo leen seen biir souvent da ngay gis ñaari gala même jour Adrien Senghor tëgg ak quelques euh, mètres de la gaal gi tëgg loolu lan moo ko waral. bon d'habitude loolu lu koy waral mooy demande bi mooy ëpp offre bi. Mhm. ñu bëgg a tëgg làmb ñoo bëgg day dem ba gars yi dootuñu xaj Adrien Senghor. parce que boo xoolee saison bi presque ay 32 ay 32 dimanche lañ ci mën a tëgg làmb mhm. léegi ñiy yor arène bi dañuy recevoir ba 100 demande léegi yow bu fekkee da nga bëgg a tëgg làmb te mënoo jot si arène bi léegi da ngay préféré dem wuti feneen loolu nag moo koy waral d'habitude mais est-ce que loolu du manque à gagner ci amul kenn ku ciy gagné juste que mooy li ma daax rek demande bi mhm. kii offre bi euh, demande bi dafa kii Euh, moo ëpp moo supérieur waaw. Mhm. mais yow un jour euh, dal na la il a obligé il a fallu que keneen ki annulé galawam su ma su ma jumul. dañoo dañoo waxtaan bu juboo rek. loolu moo moo évident wul nag ci yeneen mhm. gars yi. Mhm. kooku dañoo waxtaanoon am ci cadre yu ñu juboo après mu annulé bosam. association promoteur yi nga fi tudd sànq lan mooy Saint-Lô exactement. association bi nag association bu bees la parce que ñu ngi ko taxawal au mois d' octobre. Mm-hmm. donc instant bi amul defaguñ benn activité parce que làmb dafa taxaw. d' accord mais li li li li li li li nekk kii bi comment dirais-je li ko taxaw jóg mooy fédéré ñi ñi ñi ñiy œuvre ci bëgg simple yëpp. yëf fi mun a dem kanam quoi. bëri simple également dañuy xool ne seen seen journée yi parfois du nekk au niveau parce que ay 1 million la ñuy teg ay 500 mille. est-ce que du ngeen def comme Jax par exemple jël benn 10 millions teg ko ci benn gala uniquement pour def promotion lutte simple lu tax du ngeen def loolu. waaw mais doole tollawul nag. doole tollawul am ñoo xam ne làmb 500 mille mën a tëgg am na ñoo xam ne làmb 1 million làmb 3 millions. mais est-ce que simple warul dépasser fii mu toll. waaw mais mooy li day fekk ñu am soutien rek bu ñu amoon soutien man ku mel ni man man su ma amee soutien mun naa def 20 millions ci làmb. mais xam nga fi ñu toll nii mu mënoo jël risque boobu te amoo benn soutien amoo sponsor amoo jàppale amoo subvention risque boobu même boo ko amee sax doo ko def mm-hmm. Adrien Senghor également parfois dañ leen di limiter ngeen tëgg un million rek au delà de million du ngeen du leen ko est ce que jotul ngeen am beneen stade wala ngeen yokk terrain bi ah, tout cas bëri simple pour mu pour mu jëm kanam mm-hmm. il faut il faut que mbër di ci gis seen bopp bu baax xam nga ko mel ni Thiaka Faye liy topp ci ginnaawam mm-hmm. nga tegal ko un million mu ñëw gagné ko déjà buy ñëw war na ànd ak six sept personnes. Mm-hmm. am na coach mm-hmm. comprendre nga moom dëkkul Dakar. Mm-hmm. war na fay loyer. bàyyi na njaboot dëkk ba. ñëw Adrien Senghor gagné six cent mille francs te bu ko gagné tey balaa mu ko gagnaat mun toog un da ko gagnaat mbër yu mag li ñuy gagné ci bëre dóor bi mbër yi tamit di ko gagné ci bëre simple bu ñu ko defee rek làmb yi da ko dox bu baax mbër yu avec frappe am nan ni nga ko waxee sponsor am nan euh, jàppale pour quoi lutte simple yi amul jàppale pour yow dafa attractiful wala. mais lutte simple mooy mooy base bi tey jii nii Balla Gaye mhm. lutte simple la commencé avant mu doon voilier arène. Yékini mhm. pareil. Mhm. donc lutte simple mooy mooy mooy université bi. pour nga dégg daal ci kaw il faut nga toj simple. kon man si sama gis-gis lutte simple la ñu waroon gën a jox valeur. parce que mooy mooy mooy defar mbër yi quoi. amul benn mbër bu jékki-jékki rek di toj te jaawoo lutte simple c'est impossible amul. d' ñu dugg ci deuxième sujet bi mooy lenteuru démarrage saison Euh, ça fait onze mois bientôt wala onze mois sax euh, saison bi démarré gul loolu noo ko dundee Konaté. waaw man de wax dëgg yàlla duma ma jaar à gauche à droite. Mhm. man dama def daal càggante mi ngi ci ak aussi seetaan. càggante ci wàllu kan. càggante ci wàllu ñuy diriger. parce que bu ñu boo yore secteur bu mel ne làmb. muy mhm. drainer ci ci ci ñu ko bëgg. Mhm. ci ñu koy fonk. ak ci li muy concentre ci ay ay ay ay doomu aadama ak ay produits ak lu ne. Mm-hmm. ñuy wax ne làmb dem sax ba ne làmb facteur de développement la et tout ça. Mm-hmm. tey Covid ñëw euh, ñu de li ñu parce que damay bëgg ñu démarrer waat ci début mm-hmm. bi Covid bi ñëwee dafa fekk ñuy compétir. bi ndogal bi wàccee dimanche ba. amoon na dañ ko arrêté. déggoo benn kenn ku génn pris euh, euh, protesté. ñu teg ci ay fan ñu ne dañoo war a xeex contre Covid. monde làmb yëpp jóg indi seen ñetti dërëm monsieur juróomi dërëm jox ba pare topp ca di def ay sensibilisation gis ay mbër yi nga xam ne jë maye nañ ay masques seen i koñ. def ay gel. gis naa fa mbër mi nga xam ne muy zos ñun ñii aussi. def nañ fii bi deret manqué def nañ ay. Euh, ay euh, don de sang. gisuma keneen ku fi def ah gisuma beneen sport bu ko def yaa ngi dégg. ñu ñu ne retour am na. affaire yi xaw na dal léegi dañuy ndàmp ñi nga xam ne ñoo xaw a moom la affaire yi xaw a lor. impacté waay ñu dàmp sport yëpp bàyyi làmp 27 millions lañ génne jox ko ñan. jox ko promoteur yi. te jaruñu leen dara. da ngeen cee bëggoon yéen ay. non du question bëgg. c'est-à-dire boo euh, gisee muus waxal muus bul wax dafa am geen am oustaz waxal mais est ñu demee ba bi ba namm. Mhm. dàmp rek sport yi. làmb sport la. Mhm. dàmp leen comme il le faut. ñi ci war a am ñëpp am ci man wax ma kii moo war am kii war a am mais dàmp leen comme ni ñu war dampee ñeneen ñi ndax man man gëwma mm. euh, sénégalais yi ni ñu gëmmal sport la te ñoo ko moom jigaane wuñ ko mm. fubal feneen lañ koy defee ñu ko fii mais est-ce que écurie yi impacté nañ euh, au point que ministre bi di leen apporter seen ay aide wala genre demee noonu li ma mën a wax daal man mm-hmm. en tant que euh, responsable d'écurie mm-hmm. mën nañu mën naa ne impact impacté wu nañ parce que ñun yamuñu rek ci yor ay xale ñuy bëri ji dañu yor ay xale ñu toll ci wut amuñu yàggul rek sunu benn xale feebar na fi ba xaw a xaw a jaaxal nañu ñi woowuñ kenn bala ñoo woo kenn sunu porte njëkk a génne ak la nekk ca écurie ba am nañ fi benn mag bi nga xam ne dafa am lu ko dab aussi ci feebar ñu kenn sunu poste lañ génn ak ci la nekk ci écurie ba. d'accord souvent dañuy dégg ne waa Rufisque euh, ñi dëkk Rufisque écurie fa nekk euh, mbër kii bi euh, voyage immigration bi da leen a sonaloon est-ce que yow loolu dund nga situation boobu. <laughs> immigrant ah am nañ mbër mu dem sax temps bi may woo. Hmm. wax dëgg yàlla bon bi dana dana dana laal ñëpp. surtout nag moment bi parce que xale yi fi mu toll nii dañoo dañoo jaaxle ndax yow bu dee da nga am passion di ko dund. c' est que ñuy wax ni li euh, lamb dafa war a ànd ak métier c' est vrai que booy ñu ngi doon ñu ngi am métier. Mm-hmm. di góorgóorlu ba pare boole ceeg seen lamb. Mm-hmm. mais tey bu ñu leen xañee loolu mais dañ leen di euh, détourner ci yeneen voie. d' accord souvent da la gis ci presse presse bi ngay attaque Matar Ba ne bëggul lamb. <laughs> non euh, Matar Ba attaqué wu ma ko sax man dama relaté rek li ma sama xel jox ah. mm-hmm. ndax nit boo ne da nga bëgg benn mbir. temps normal nga ànd doog ñëpp da nga ko bëgg ñëpp d' accord nañ da ko bëgg. mais bu jafe-jafe taxawee. ay saafara taxaw mais kenn warul a jiitu pour joxe ay saafara. lan la war a def pour yow. mais li mu war a def mooy ñun liñ def ba pare mu nangul ñu ko jox ñu delloo ñu cër boobu mm-hmm. ndax on s' est organisé mm-hmm. bon du ma wax Massamba du ma wax ma Demba. si mi ngi fii association des lutteurs ñoom ñëpp def nañ li war a def mm-hmm. ku nekk xaatim nga wala ñu woo la nga wax li nga wax li nga xalaat ci yëf yi. donc pour pour waxu lan la war a def waxtuñ ko parce que jébbal nañ lépp CNG CNG ñëpp la gis ñu jébbal ko moom mu ne jébbal na ko président mais man euh, lan laa comprendre Assane bu dee ñun suñu sport président Macky moo koy lijjanti non ñun demuñu fenn Macky Sall ne le président am na yeneen soxla yu dul di lijjanti ku war a fubal ak ku warul fubal ku war a bëri ku warul bëri mais le fait que li fi pandémie bi nekk ak situation. pandémie bi hmm. teewul yeneen sport def seen seen sport. mais est-ce que yeneen sport yi ak lamb. lamb leen dem nañ fi wax ay huis clos des trucs comme ça. xam nga lan lañ soxla fi mu toll nii. Hmm. ñun waxuñu lamb dañ koy def ko nañ ko daan defee xam nañ duñ ko def nañ ko daan defee. mais nañ wax nañu lamb ubbi na nii lañ koy defee. d'accord au moins ku mën a def def ku mënul def ñu xam ne mënoo def nga toog. d'accord mais dañu war a jox cëru. Hmm. ñu ne ñu lamb ji ubbi na wala lamb ji du ubbi. d'accord. ñun ñu xam nañu nu ñu toogee quoi franchement parce que tamit daan wax leen mhm. bu ma nee bëggul làmb c'est pas parce que bëggul làmb mais acte yi mu posé mooy acte yi wane na moom bëggul làmb et puis joxul joxuñu cër bi nga xam ne ñun moom lañ ko jox parce que on le respecte beaucoup tànqamlu bi ñu tànqalu nii mhm. bon ça dérange d'accord xam na yëg na genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko d'accord Yacine ça fait onze mois ba léegi dara démarré gul en tant que promoteur noo dundee situation yooyu. metti rek fi mu nekk nii damaa déglu woy làmb sama oto ak sama kër ndax nangu làmb mais nag comme li Père wax rek. Mhm. gars yi bu fekkee dañuy wax dëgg rek. oui gars yi bëgguñu làmb. tax nga wax loolu. non parce que euh, comme ni ko Père waxee. Mhm. Euh, Covid bi mu ñëwee. Mhm. feebar la dañ koy nangu. mais nag euh, yow yow ci làmb nga yëngatu. man ci làmb laay yëngatu. dañoo génne ay fonds ne ko Covid la xaw ma 1000 milliards xaw ma ñaata milliards. oui. 27 mhm. millions pour lamb. est-ce que tu trouves ça raisonnable. Oui. moment où xaw ma ay musiciens yu leen jox ay 6 milliards xaw ma 5 milliards. d'accord 27 millions yooyu est-ce que waa lutte simple am nañ ci. dégguma ko. lu tax amoon ci pour yow. man loolu jaaxal ñëpp nag. à part que boo jëlee sama exemple man man maa ngi woon organiser à à huit jours. Mhm. bu ñu bu ñu bu ñu collecté fii. pratiquement samay dépenses yëpp defoon naa ko. lenn rek moo desoon muy mise bi. donc dama dama jàpp sama gàtt xel bu bu ñu waroon dédommagé. Mhm. ñun ñii dañ ci waroon dañ ci waroon bokk. parce que ñun ñu ngi waroon organiser def nañ suñuy frais yëpp fay nañ li ñu waroon fay yëpp fay nañ ko. Mhm. liñ publicité yi war def nañ ko. donc jox nañ avance tëggkat woykat jox nañ ko avance. d' mhm. léegi CNG woo na leen pour ngeen déposer ay projet de budget yow bi nga fa demee sa projet de budget exactement lan moo ci nekk. mooy li ñu lii moo xam nga làmb deux millions 500 la woon organisé. oui donc li ci li ci waroon def yëpp laa def déposé ko. bénéfice ak tout ça li euh, bénéfice yi nga ciy waroon xaar wala. non parce que xamoo ñaata nga am bénéfice mun nga tëgg làmb sax daanu. mun nga xamoo ñaata ngay am mun nga tëgg gagné mun nga tëgg perte. Mm-hmm. l'essentiel mooy li nga financé rek ngay joxe. bu fekkee 3 millions nga financé. 3 millions ngay jox. d'accord le fait que nga déposé projet de budget boobu mooy que ne accepté nga affaire yi demee à à véhicule mais xam nga Assane bëgg simple mënul am véhicule. lu tax mënul am véhicule. léegi bu fekkee bëgg simple véhicule kan lay profiter d'abord. Mhm. kan moo ciy gagné. d'accord parce que mhm. parce que man damay bëgg di tëgg làmb di gis gars di yuuxu sama yaram di tàng. Mhm. mais bon bu fekkee véhicule sax da jarul. bëgg simple. parce que man gisuma avantage bi quoi. d'accord léegi véhicule bi man nan laay def ba gagné. mooy mooy mooy ministre may jox. daf may naa ñaata ngay organiser ma jox ko sa ma ko 3 la. mu tegal ma ci deux cent bénéfices. amul sens d' accord dernier tour de table. Mm-hmm. Euh, ñu gis làmb ji mi ngi jogee Sénégal jëm Gambie loolu yaakaar nga ne mën na loor Sénégal wala. bon man je ne pense pas que ne loraa nga mën na ci jur sax bon làmb fu fu mu la yóbbu nga bëgg ko dund mën ko dund diggante Sénégal Gambie je crois que ne soriwul. xale yaa ngi dem di bëri di ñëw. ñuy bëgg a seetaan ñi ngi dem seetaan di ñëw. bon fi mu toll li ma xalaat daal ci ci mbir mi. Mm-hmm. comme li sa waay wax. Mm-hmm. yi nga li mooy wane ñun on n'est pas encore sorti de l'auberge gars yi ñuy wax ay fédération lañ jëm ak nangam nangam mais teguñu jalon yooyu. d'accord xam nga teguñu jalon yooyu. Mhm. mooy d'abord canaliser wuñu ñun fan lañ bëgg a dem. exactement ba tey bu ba problème am na nii ñu ngi toog di ba léegi xalaatuñu lan lañu war a doxalee sunu sunu sunu sunu sunu sunu sport bi. d'accord tàggatoo waaleel ci loolu. donc fi mu toll nii jeex na <laughs> waa d'accord de toute façon mhm. bon li ma buggoon lancer comme message rek mhm. lay tàggatoo mhm. mooy il est temps que suñu autorités yi toog ak ñun tenu ñu euh, benn langage de vérité d'accord mooy ñu wax ñu ñun làmb ji kañ lay tijji parce que ñun def nañu waroon def te xam nga ne ñun affilié lañ ARELS mooy mbootaayu ñu yor écurie yi dem nañu affilié wu ji d'accord nee nañu ñu ñëw renouveler licence xale yi mais foofu dañoo bañ. d'accord waa donc dañoo war a jox mhm. une date bi nga xam ne sinon. menacé wuñ def ñu kenn mais ñun dañu organiser wu ba yooxu ba ñëpp xam ne ñun ñi ñun ñi li ñuy jóg li ñuy ñaxtu suñu droit la. da ngaa pare génn ci mbedd mi. ah génn génn pour lan ñun ay responsable lañ. d'accord mais danañ teg ay yu fort yu wane ñun ñi nous ne sommes pas contents et que dañoo war a jox suñu cër. d'accord Yacine làmb ji mi ngi jëm gaa mi est-ce prévoir nga pour tegu foofu. non en toute sincérité noonu non. tax mais na bon asan Sénégal ak Gambie benn. Mhm. lambi bu Gambie bu am lamb bu amee Gambie war na mën a am Sénégal. Mhm. damay revenir ci li ma la doon wax sànq ne gars yi bëgguñu lamb. Mhm. boo demee ci arrêt yi ñu ngi fees dell ak ay nit. nga dem ci marché yi gars yi def fees day fees dell boo duggee ci kaarape ci gars yi dañuy tàncaloo. c'est vrai comprendre kon man gisuma lu war a mën a tax ba lamb du ubbi. sa xanaa di la sant di la gërëm rek. kontaan naa bi. Euh, di ñaanal waa Leewtoo TV mu bu dem ba doon ay télé télé. jërëjëf yaa sant Sarr jërëjëf euh, Ahmed Konaté amoon mbégte jàkkaarloog yéen li moo doon seen cinquième numéro jotaay lamb di leen jox dig daje jeudi prochain incha allah jërë ngeen jëf.